elle s'effrite trop vite. On est arrivé, Kiki. Alors, Amina, tiens, tiens, ça. Salam alaikum, salam alaikum, amis chers téléspectateurs. Namon J'espère quand même que vous allez bien et que tout se passe bien. Magnifique, tu vois, kan mooy sama cible Amina. <laughs> cousine chérie <laughs> ay dara la ñu war a wake ci gën a grave mooy ndeysaan su ma jigéen la dama ko bëgg quoi mais dégg naa dafa ragal xaj mais imagine ma jël xaj bi dindi mbàjji faa yi ni ko ci njëlbeen bàyyi ko ci biir mais faa est-ce que moom dina tiit comment ça mais ko est-ce que duñ ko bàyyi Amina mais d'habitude elle s'arrête à quel âge daa toujours se réveiller à midi. midi. ok. jullee fajar ba pare moom day tëddaat. te balaa midi moom. ndeysaan day julli fajar ba pare doo tëddaat. julli fajar ba pare doo tëddaat xam nga loolu gars yi xamuñu ko woon ci Far. on aura l'occasion d'en parler tout de suite. les amis restez scotchés c'est sur la première chaîne de télévision privée du Sénégal bonjour à toutes et tous et c'est avec Vicky. ça eh ça devient la jàmm on y va. Let's go, let's go. Wake up, wake up, wake up. Hey guys. léegi léegi ñu daal di wake up Mika ma ne ay Paa Paa. Paa ça va. man sa man fan nga jàngee su kaala wala Mika. <laughs> studio neel wake up. neel fa bëgguma lii de neel wake up. man ma loolu elle commence à jouer maintenant. xoolal neel wake alors teraanga nag lañ fi fekk ndeysaan suñu yaay bi yaay fa ñu jox ñu ndekki dana war a ndekki ba bien après nag ma naan sama boisson énergisante pour la discussion avec Faye Dara restez concentrés restez scotchés à kala waay. mais Vicky de Vicky. man maa ngi commencé sot instant bi nga sa xarit. la nag de xam nga faa yaa may def technique. Kheucha yéen nii dama doon kaf. wake up léegi nag pour e, sa sot beeg sa yooyu yëpp dañ je vais voir ça. tey eh, dugul sa plateforme. nada <laughs> donc da lay jox énergie c' est la mère des boissons énergisante moo ñu accompagné ci émission bi laataa ma lay bàyyi ngay guur sa guur man ma daaj dama lay bàyyi aussi ba leen bëgg téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi lay seetaan xale yi ñoo la sonal ñoo ma topp naan ma jëlal faa jëlal faa jëlal faa jëlal faa waaw. maa ngi leen di ñu ngi équipe technique bi yëpp. waaw yéen ñi nga xam te ne tey yéen a ma yee baalu ma leen baalu ma leen nag de. sama mère xajul si yéen. mais problème bi yëpp xam nga kan la xam teg sama la Amina Amina moo la dugal ci lii lépp. billaay walaay Amina mu bàyyi ko parce que moom moo fi ñëw man damay man fu ma ne damay jax si bi eh. naan ma ay faa da nga ko war a yee eh. man ko xaaral faa bëgg naa ko yee eh. mais bëgg maa jël xaj bi. mun ma jël xaj bi dool ko ci biir man ci biir ak yow la Amina. waaw man du ma wax. alors <laughs> wake up les amis. Euh, ñu nuyuwaat leen bu baax a baax ziar képp koo xam ne yaa ngi ñuy seetaan à travers la première chaîne de télévision privée du Sénégal comme ni ngeen ko gisee tey nag on a comme cible euh, Fa Aïdara va pas être facile parce que nag ku ne xam na ni nga yee nit ci fajar dafa métti déjà man damay wake up sama bopp damay teel a yeewu nelaw ma biit maa ngi tëdd ay 2 heures du matin je me suis réveillé à 7 heures 6 heures 30 donc pour euh, pour yàq la yàqal aussi say nelaw maa ngi jéegoon loolu. naa fay. waxuma ne ko nu ma jox caméra yi yëpp man tam ma ñëw wake up. <laughs> wake up xanaa ñi ngay àndal. man xam naa waaw sëñ bi walaay ne nii <laughs> alors Ba ñu nuyu la ziar la ñëpp dal nañ ci kër gi ak jàmm ñëw nañu njëkk ak jàmm maman gàttanu Amina gàttanu. ñu lekk ba suur mais balaa waxtaan benn neex damaa bëggoon indi fii mu toog ci digg bi. déedéet xacha ngir yàlla woon suur yi ah ñu ngi dem de waxal li ngay wax ñu ngi leen si xaj bi. <laughs> alors euh, donc nan nga def en bref ah? dañu ñëw fekk ci table bi ndeysaan da ngaa jullit rek waaw. am na sa bopp de kaamil ay ay xasida ah. da leen ni da leen tuur saa ay jullit ay durus kay ay murit lañ teg ci moo te bu baax yow te nekk di di di kii. di xaale xii na baax jaamu yàlla Fara d'habitude elle se réveille à quelle heure du lundi au dimanche bon mu wala ah d'habitude nag su fekkee aw ma tournage damay yeewu julli rek te daal di nelaw yeewu ay 14 heures wala. kon du lundi dimanche Fa Aïdara day yeewu chaque fajar julli fajar. ah parce yaa ngi ne yeewu fajar julli noonu. waaw mais Fa yow laay posé question parce que c'est c'est c'est pas fréquent de nos jours avec des filles jigéen ñi xale yu ndaw yi taamu surtout julli fajar. julli fajar daa métti rek. daa métti. commencé day di. daa ngi saa yi nga julli seytaane naan la tëtal tëtal. loolu yëpp nga julli ko. ndeysaan ngay bësanteeg seytaane rek. ndeysaan waaw eh, oh, mais bon yàlla baax na. mais boo xasee que da ngay liggéey nga am ay tournage da ngay julli rek sangu préparé wu daal di tàllal. ndeysaan léegi boo jullee ba pare lan ngay def d'habitude da ngay ndékki wala yow ndékki too ko farataal ko. ah doo ndékki. doo ndékki est-ce que looloo tax nga tuuti nii Fane. non non ndékki du ma añ reer rek ay def. reer kese mais Fane loolu nan nii dama yàlla bindee du ma lekk sama lekk bariwul. kon toute la journée yow da ngay woor. waaw loolu moo tax man mooy mooy gën a faral di woor ak lundi ak par jeudi. ok maa ngi xiif. dafa dama ñu suba ba guddi du ma lekk man maa ngi sentir xiif naa maa ngi dox ma nga war a def jënd dara lekk. mais Faa bu yeewoo dina togg. dana togg kay. mais kenn mooy togg da ngeen am doon bu togg ci kër gi. non non non suñu kër amul ndeysaan mooy toog yenn saa yi. te sama yaay daf dugal ma dama am dama ma toog ma toog yaakaar dama ma xëy. am envie toog dama bëgg toog sama xol. lu mu gën a mën a toog. lépp laa bëgg. yow waxal sax mu soxlaa te xam nga ni man dëkkuma beneen yoon naa leen exige bu may. benn may am ay kërkat ci biir. ba si vous nous suivez yéen a ngi ci seen beneen numéro Wake Up Wake Up nag ça se passe comme ça tout le temps euh, dañuy xam. faa bu yeewoo nu muy def faa bu yeewoo day togg añ ba pare bu fekkee ni day liggéey euh, lan lay njëkkee ci lan lay mujjee tout ça vous aurez l'occasion ngeen xam ko ci moom tey ndaxte ay détails la yu ndaw yoo xamante ni d'habitude nit yi dañ koy gis waaye duñ ko dañ koy bëgg a xam ci nit ki kon nag rester concentré euh, pour ñu gën a mën leen expliquer ngeen gën a xam ci ki nga xamante ni moom moo di faa donc faa avec la famille ça se passe comment sama famille nag maa leen nuyu sax de passage bi sama maam mi nga xam te ne moom la yar nuyu samay tata tonton les petits frères. maa leen di nuyu ñoom ñëpp de passage. sama liggéey nag dama see épargner sama famille. ok parce que man maa siiw ñoom siiwul. ndeysaan te chat dafa dafa gaaw ak laa mel. ok te dina yàgg ci réseaux sociaux yi. dëgg la parfois je conseille à quelques. quelque genre wala. ñi ah. nga xamante ne si internet bi lañ nekk ñu épargner seen famille. d'accord di arrêté di filmer seen i yaay wala seen i rakk yi di internet bi. ok parce que yow rek déjà cat nga quoi bëggoo dugal ñeneen ñi quoi. voilà mais non. alors ça se comment yaag mère bi ci kër gi. yow nga nekk ci gi ak ah du nekkee guerre. <laughs> c'est vrai guerre la. maanaam moom du du jubóo duñu ànd. mais comme tout le monde ah. yaay yi day saan. la nag ndeysaan daf may protéger rek daf maa bëgg man dama ko nekk sama xarit nag. Mm. waaw. sa relation ak sa maman qu'est-ce que tu peux nous dire parce que dañu gis ni vous êtes très très très très proche. ah ma sama yaay dafa nekk mère jeune nekk xale bi may am. nekk xale bu ndaw. Hmm. sama mag bi maase bi moom. damay àndal moom dama naan ma mooy sama bi. ah waaw waaw dama yoroon dara. donc mooy sama bi. alhamdulilah waaw doo leen béy. non damay damay daan bàyyi bàyyi noonu rek xam ne du man kese ah am na ñu wante tamit dañu mel ni ñu ànd ak seen yaay. Hmm. ñu nekk ay jeunes parfois man dara may gis ñaar ñu ànd mu bëgg a ni kii mooy yaayam. ma xalaatee man tamit noonu la ñuy def yàlla moo ko bindee noonu maa ko gërëm di ko nuyu di ko wax di ko euh, mu ko ciy remercier waaw. dama kaa ragal nag. ndeysaan macha allah il y a eu benn moment boo xamante ni gis nañu ni yaag sa yaay nekkatu leen woon wala ndax euh, gisee woon nañ la Maroc. moment boobu noonu. tu vivais sans elle. non non si si. ah moom la fekk woon Maroc. ah moom nga fekk woon. Maroc ah, la nekkoon. kon yow yaa indi mère Duarte fii. maa indi fii. ndeysaan. lu wàllu liggéey bi bàyyi lépp bàyyi liggéey bi yëpp ñëw na ma xam ko man dara ci yow parce que mu ma la bàyyi Sénégal noonu kasi ak wax ji ak coow yeeg yooyu. ndeysaan pour man pour assister. ndeysaan en plus que fii unique la aw ma mag aw ma rek. gën a métti. ndeysaan. moo tax ma yëg rek lay langal la nga doon kàddu gi. ndeysaan mu ngi ànd ak yow. alors comment ça se passe bi ngeen jugee Maroc ñëw Sénégal c' était pas difficile au début parce que yow Maroc yow la daan gisee et tout. non pourtant Maroc man yàgg ma fa noonu. Ah, ok Maroc def ma fa sax un an. dama demoon rek <laughs> pour liggéey. ok yàlla na tomate TikTok bi. Hmm. ma ñibbisiwaat naan yàlla moom jaamu nu ñu koy waxee sax. jàpp ko ma la yàlla pexem yàlla dogal la mu ngi noonu yàlla daal moom noonu la ko dogalee. ndeysaan nee na ma yaa ngi dem ma yaa ngi ñëwaat. parlons de TikTok. Mm-hmm. l' application bi nga xamante ne tey euh, biñ ko créé fii ci Sénégal j'ose le dire et je le dis tout le temps yow yaay seule personne bi nga xamante ni Sénégalais ràññee woon nañu ci kuy def TikTok muy man ak keneen ak keneen donc beaucoup de jeunes tey euh, euh, jël nañ TikTok mais grâce à toi. donc utilisation bi di TikTok yaa ko njëkkee waaye dara ñaawul ci ba nga ñëwee léegi. comment ça fait aujourd'hui nga gis tey nombre d'abonnés et que nga gis tey sénégalais yëpp ku jug ba ci artistes ku jug day wut influenceur pour que mu jàppale ko ci son te tout au def ba xam TikTok déjà. <laughs> déjà damay remercier ñëpp ki nga xamante ni am nañu courage ak audace ak reconnaissance surtout parce que nit mën na def lu baax euh, mais du am na ñu bëri ñoo xam ne dañ may woo wala ñu ñu dem si interview di toog si télé man faa moo tax ba dugg si TikTok bi. donc reconnaissance boobu maa ngi si remercier bu baax a baax a baax di wax ne sant yàlla rek la boo nekkee ci mbir moom ba ñëpp ñëw fekk si la fan ku ñëw taxaw ne faa moo tax di yegg yegg yi dañ ciy sant yàlla. TikTok nag. ba <laughs> mu koy xam iPhone 5 laa yoroon. iPhone bu ndaw boo xam te ni matu kii bi giga bi ñaata la woon est-ce que woon 16 giga. TikTok. Hmm. ma ma ma ma ñëw fekk si ñoom Mariem ñoom Lasga Lasga Lasga ba mu TikTok bi. mais Lasga maa ngi xam waaw ak ñoom Achille de Jules damay def mes chéris bonsoir. ndeysaan ñoom ñëpp ma leen doon gis maanaam waa TikTok mu nan koy defee. ok yooyu jour na maanaam sama benn copine maman maa ngi koy nuyu moom tamit de passage nekk sama ami d'enfance. Hmm. moom moo amoon nag tablette benn iPad. def si TikTok ak léegi mu expliqué ma expliqué ma ko xëy ah, na dafa compliqué man lii moom mooy ko. léegi nag ma téléchargé ko su ko beneen vidéo maa moom sax ñoo ko def ñu def vidéo affaire yi def ay vues yu bari. ma ne ah. <laughs> après dama defoon di planqué di ma daal koy désinstallé. ok bi ma ko désinstallé mais toog lu yàgg fàtte ko nii di ma envoyé te au début sama yaay dama bañ de. ok dama tamit doon gis. ah su ma defee ay vidéo yi di ko dugal ay statut WhatsApp rek. ñu ma bàyyi li ngay def. ah li ngay def mooy lan. ku nekk nga yónnee vidéo bi naa ma sa doom bi sa doom bi sa doom bi. ndeysaan cat baaxul. ne ko waa baax na bu dee du may def statut dama koy visé. waaw teewul li ñuy def statut muy gis rek man mooy xam naa ne dëgg na mais par la suite nag ma am beneen téléphone téléchargé uh, kii bi application commencé fii euh, Sénégal def fi presque ay 5 vidéos 6 vidéos laa demee Maroc. d'accord mais li may commencé Sénégal tamit euh, yi dana def ay vues bari. Mhm. ba benn jour tamit ma demoon liggéey rek si ma kii bi tout ce rond point Gueule Tapée bi. Mhm. benn xale boobu nekk scooter rek daal may arrêté na eh yow nekkul si TikTok bi. Eh. kooku mooy sama premier kooku mooy premier bi nga xam te ne moom dëkk xam. Sénégal waaye yàlla na ko gisaa ma yow nekkoo si TikTok bi man la gis yow yow da nga aay de ma ne ko ah merci léegi ma aay na sama benn tante tata Dior maa ngi koy nuyu moom tamit. ndeysaan ma ne ko Dior donc xam nga maa ngi commencé si. <laughs> ma ne ko xam nga maa ngi commencé si. <laughs> waaw baax na maa ngi commencé si gëmoo leen ma. <laughs> noonu far yàlla si laa demee Maroc. ndeysaan bi ma demee Maroc tamit. même ah. jour maa ne sama yaay ñu dem marché. fekk nga daje benn xale bi moom gis ma ne kottu ma. Eh. mais ma yow laa gis TikTok bi. ndeysaan non vraiment sa comédie damay ree ba soxla nga ko dégg sama vidéo la oh, vidéo oh, comédie la. waaw sama yaa xool na dama yow lan ngay def ba nga xamee. <laughs> yow yaa ngi bii sof rek. dégg nga maa ngi bu ma ko bu ngeen ko ma li ngay def. Ah. léegi demee na mais bon ko vidéo yi ma def yëpp. ndax léegi damay toog ay mois dama sax laal TikTok. moo am jom bi. ndeysaan. doo def TikTok. Eh? ah yéen a dëkk bi. boobaa dëkk bi yëngu na. stressé rek di ko ngir tàlloo nii. ndeysaan ndeysaan nii nii nii nii nii ba nii. macha allah macha allah et aujourd'hui euh, ce qu'on peut retenir dans ça mooy que depuis euh, que mu ñëw ak léegi yàqu ci dara maa ngi koy wax léegi sama njëlbeen wax. et euh, tey mi ngi ciy gagné beaucoup de ndax gis nañ ci tey ay partenaires mm-hmm. yoo xamante ni dañ ciy liggéey ak yow et aujourd'hui euh, xalaatoon nga lii en ci TikTok dem ba ay partenaires di la fay xaalis pour nga liggéey ak ñoom damay teg sama Uber sax nga ne ma ay eh, lii nag pour la parce que xam nga rôle tey li nga xamante ni moom moo les agences de com naka la liggéey et euh, euh, xalaatoon nga ci tey dem ba ci fayeeku te fayeeku bi jaarul ci say nombre de vues parce que se rappelle qu'on mm-hmm. rappelle qu'au Sénégal TikTok ne paye pas même mm-hmm. en Afrique on peut mm-hmm. mais tey ressources yi ñu ciy am retours yi euh, c'est par rapport ak li nga xamante ni moom moo di agence de com yi aujourd'hui retour boobu nga xaalis boobu koppar <laughs> Kopa waaw yow yaa ngi eh, xam Sénégal fay. waa je sais di di di ko rëyal amuñu tous damay dama koy préciser jeune du am. jeune day nekk yoon bi dara buñ am ñu ngi ñu ngi investir xool ñu ko mën a def ba ëllëg incha allah buñ ay parents mu mën a jural leer. je précise yoroon ñu de. yoroon ñu ñu suukaree man man bu ma nekkee dama àgg ma àgg ma neex. sa question bi dama siy ñëw mooy xaw ma xalaatu ma woon ni. TikTok dina dem ba ba ba egg fii franchement. Mm. mais parce que déjà man de un. Mm. keroog loolu la waxtaanee sama yaay man ko man du ma nekk cuisine. ñu tax nga wax loolu. parce que damaa bëgg kees sax. waaw déjà man. kalaas su ma naan jàngi sax sa gannaaw gannaaw lay toog. ndeysaan récréation sax du ma génn ndax rajo rek ñu génn ba léegi ñu. mais quand tu fais la vidéo ci TikTok bi da ngay on dirait que Faa ragalul li mu def. moo tax damay dem fii parfois day teg ay nit dina ko Faa TikTokal. TikTokal mm-hmm. nii ma xool. jigéen mm-hmm. <laughs> ma ne ma lan laay TikTok. ndeysaan ndeysaan gis ma naa ma yow. li nga mel si TikTok bi nga ñëw fii di yaru yaru xam ne sa jikko yaru woo. Mm-hmm. duñ comprendre personnalité ak personnage ah, dama bëri kees la. dugg si xool bi maa yow. <laughs> alors TikTok euh, tey dem na ba def na dara ci Fa ndax quoi qu'on puisse dire mi ngi dund ak propre moyen. Mhm. Fa mi ngi dund ak yaayam mi ngi dund ak famem mhm. donc tey du toog di ñaan dara benn xale bu góor parce que mi ngi ñafeel boppam mais euh, keroog dafa am benn question bu am solo bu ñu laajoon tout de fait des vidéos par rapport ak vos tour vos retours cest dire li ngeen di am yow tu peux avoir combien par le mois. man maa koy wax man maay wax li may wax ñu jël wax. jël chiffres yi dem matema xasaar bi ko def. kon loolu wax yow xaymaa moom a ngay am lu mu wax. xasaar pour xale yi mu ngi dugg ñoom ñu dugg. bi bu ma nekkee milliardaire. Oh. ngeen may compter parmi les milliardaires. la soo revenu yi. la la la la célébrité de revenu yi xaw ma lan ak lan ak lan par mois. di ma wax mais pour l'instant man lan doyul. ma ne ko sama revenu ñu am samay nag la ko am. yow daa waxoon sama revenu léegi am sa revenu. non man maa lay laaj. maa bañ. kon daal loo say revenu la. moo ko wax. maa ngi sant yàlla maa ngi sant yàlla maa ngi suturlé wu maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax rek sincèrement. alors Fane lan lay xaar pour am jëkkër. yàlla. waaw yàlla de yàlla de yàlla de yàlla ñëpp di xaar nii. ah yow day am mais yow peut être yaa ngi ci relation bu. yàlla moom xam nga relation. sëy la xam. yàlla de mooy nag jullit si am relation bii de. yàlla de yàlla sëy la xam takk na sëy ci aras man nag sama sëy moom xam naa sama dëkk mi ngi ci dëkk bi wëndeelu ko bi am bis bu la jàpp. bu ñëwee naa laaj xam nga ne ko. ak lu tax nga teel a nga yéex a ñëw. nga yéex a ñëw ndeysaan alors euh, gis nañu tey euh, milieu bi ça regroupe beaucoup de jeunes. xale yu jigéen ñi def TikTok bari na am na ci ñoo xamante ni peut-être yoonu caractéristique ak euh, ni ngay defee TikTok am na ci ñoo xamante ni dañuy sol ay tenues yu indécent mhm. wane seen ay cër. Mhm. tey loolu noo ko gisee ak ban message nga leen di lancer ñoom ñooñu nga xam dañuy TikTok pour wane seen ay cër wane seen ay seen yaram en naqaree dëkkee. Hmm. neexee dee. Hmm. waaw dafa métti Sénégal dafa hmm. benn wax bu tuuti ngay jël sens yi bokkuñu dégg-dégg nii bokku ñu jël sa wax ëlbati ko waaye ñu jël sa wax yóbbu ko Australie. kenn yóbbu samay wax Australie. <laughs> waaw ñi sol yu indécent. Ah. du ma ci wax. seen choix tamit lépp xol la. fi di ñuy sol yu sexy. te seen xol dara ñoo dàq julli ñoo dàq woon ñoo dàq jaamu yàlla. dëgg la ak wër ak kii mooy tontu. <laughs> <laughs> am nga loo dagg alors euh, Fa lan la ñu mën a xam na tey. Mhm. Euh, ci li nga xamante ni moom moo di euh, say projet ci wàllu TikTok. Mhm. yan nga ci mën a tegal lataa ñuy dugg nag ci li nga xam ne moo nekk ci réew mi ak message bi nga war a jël ci wax ak jeunesse yi mais lan la ñu a xam tey ci Fa ci ay projet am ci TikTok. Et on voit que tu, tu, tu, tu, tu rénoves. Il y a une vidéo spéciale, des fois des messages, c'est vraiment quelque chose de très spécial aussi. C'est ça mon rôle. Mm-hmm. waaw. bëgg euh, mm-hmm. def lu différent rek. bëgg def lu raar loo xamante ne ko gis ne waaw macha allah man xam nga man simple la. nga la man dégg <laughs> samay projet. waaw ah. du ma ko wax. <laughs> quoi les projets. ndax su ma ko waxee. waaw bu egg. Sénégal lañ nekk. su ma nee suba damaa bëgg ubbi boutique. dinaa toog at. boutique bu ma dem ñu ni ma. boutique bi. léeg léeg léeg maa ma xëy ñu may suural di ma misal. waaw ma taal ma xale bi ndaw laa damay wut. bàyyi ma noppalee da ngeen xëy xëy rek gis affaire yi bëm. faa def na lii faa projet bi la amoon egg egg na sotti na. waaw lu sottee lu luñ dee wax. wallaay sotti xam nga daa ko noonu. et concurrence sur les réseaux ça dit quoi. parce que tey am nga concurrent ku ne am na concurrent man mi bërki démb lañu am nit ki lépp lay def am nga concurrence yow am nga concurrent man am na concurrent. yow ñàkk fay la. waaw mais lan laa ñàkk a fay la ah. bon concurrent. léegi la ngay ree. yow laay ree sama concurrent nga ree yaa leen tooñ de. qu'est-ce que ça boo gisee ñu ne faa ak diw la ñuy taqalee faa ak kii xëcaa ak kii loolu naka la lay def yow déjà boo gisee. du ma ko gisee dara. ma hmm. damaa xam damaa dugg fekk ko te damay dee bàyyi ko fi. waaw segam a mag hmm. ku yet xam nga sax euh, ku man. Hmm? te mbir appartient à celui qui commence même si le dernier fait bien. gan yi bu jinax mu dëgg génn na naan jinax taa yi ni génn mais ni alors on peut pas s'en passer ndax mënuñu nekk nii en que jeune et qu'on va pas parler de ce qui se passe au Sénégal actuellement parlons de la politique mu dekk loo xamante ni lu metti la Euh, ci gis-gis tey ndaw ñoo xamante ni bokkuñu gis-gis ñenn ñi nekk ci benn parti mm. ñeneen ñi nekk ci benn parti je vais être clair mm. ñii di faral ni ñii di faral Sonko et aujourd'hui ça crée le débat au Sénégal beaucoup de jeunes tey dañuy gis li ni mel sur les réseaux saagante yi tout loolu boo gis aussi ci sa plateforme bi nga xam ni tax nga xale yi di ko use muy TikTok parce que fa la lépp di jaare qu'est-ce que ça te fait ngay gis loolu noonu les images que daf may métti te barki démb fa mu métti sax nag mu métti ñu def. Kheucha euh, ñun yoruñu passeport américain. Mm. yoruñu passeport français ay Sénégalais lañu te ci dëkk bu leen dëkk. Mm. Euh, dëgg nag fu mu am jàmm du fa am. Mm. te gémmiñ bu waxul dëkk wax fenn. Macky Sall mooy suñu président loolu seen kër kenn mënu ko wér. bis bu yàlla dogalee mu war a wàcc day wàcc bis bu yàlla dogalee mu war a wàcc day far kenn du. mais Ousmane Sonko doomu aadama la nit la te papa la man man man xalaatuma Ousmane Sonko de man ay doomam lay xalaat su ma toogee di gis yenn vidéo yu koy mm. man xale yi buñ tee buñ teewee buñ teewee te parce que léegi xale yi dañuy yor o mm. ñooñu gën a xam réseaux sociaux yi. Mm. buñ toogee dugg si réseaux sociaux yi wala ñu toog gisen seen papa liñ koy def dina dina nan la ñuy dundee en fait. man loolu laay xalaat seen seen. doomam yi donc ñu jël wax ju ñaaw wala jëf ju ñaaw ju ne teg ko si te nguur bu wëy neex na trop mais du wëy nañ ko may jàmm mm. loolu la amoon su may wax li ñu koy def nii métti na ma trop parce que bii passé maa ngi gis ñu toj verre bi. Mm, non toj bi tëbëj quoi waaw voilà c'est désolant. Mm. si dëkk bi lañ dëkk nag ñun amuñ sut ñun les influenceurs mënuñu nekk si dëkk ba pare naan ñun suñu yoon nekk duñ wax si lii duñ wax si lii. soit da ngay far soit nga bañ a far rek. wax faruma mais tamit su ma gisee injustice dama koy wax. di je xëcc rek waxante dëgg. bu dëgg bu leen dëgg. li fi xewoon ci mois de mars ñaanu yàlla mu xewaat fi. te jàmm ji Macky Sall moo ko yore. na na doxal jàmm mu am ci réew mi. tamit coow tamit. sinon ñun du ñu am jàmm sax. billaay gis nga ñu am jàmm billaay. une semaine une semaine déjà rek problème dafay am parce que liggéey du am. transport yi toog. kenn ku nekk tëju sa kër. loolu du yàq économie la pratiquement la dëgg la. ma defe naa ni message bi jàll na moom tam xal gis-gisam ak xalaatam la wax ci li ni mel nekk ci Sénégal nekk euh, loo xamante ni kenn waroon mën a wax te fàtte ko donc fa euh, tey boo xamoon benn message bi nga xamante ni ngay lancé à la jeunesse mm. toog di la mm. nga xamante ni ñu ngi toog di xool fa à chaque fois ban message lay doon ci benn une minute message bi ngay wax boo xamante ni yow da nga koy tënk pour jeunesse bi yëpp li nga xamante ni ñu ngi toog di la seetaan. parce que jeune mooy doole ju mat ëllëg. te mënoo ba nekk mag naa da liggéey ay ñafe rayante ku nekk fi am nga jaar bu ñu xeeb benn liggéey y a pas de sous liggéey ñafe teral seen waajur surtout fonk seen waajur bi tamit parce que yaay mooy sa gàllaay. Hmm. fonk leen seen waajur bi ngeen am bu dee cent franc jël leen juróom ba jox seen yaay jël juróom ba jox seen pap def leen denc voilà. mango defe naa ni message bi jàll na itam ci fa ñu ngi lay gërëm en tout cas kontaan nañu di jégalu waat bu baax a baax xam naa balaa ñuy tàggatoo damay indi fii nga uuf ko. xoolal. damay indi fii waaw. mais moom bu ma jege la tey dégg nga nga seet. alors ñu kontaan bu baax di jégalu waale ci yee bi. ndax jégalu ma leen. mais doo ma jégal ma. sama xam nga sama ñaan loolu xajul si yéen. Ah. ma pare ba tudd yoor yoor fii. Ah, ah. ba heure moo paree ba julli ba def ñaari rakka. non bu ko def ba wér la yow ngir jëmmi sëñ Fall mi nga bëgg. laal laa laal laa sa xol de ah laal laa sa xol. merci beaucoup. <laughs> alors looy tàggoo ak ñoom ñi nga xam ñi ngi toogoon di si daal téléspectateur de Leewtoo yëpp. maa ngi leen di nuyuwaat di leen santaat. yéen ñaam yéen a may tey si fajar tiital ma baaluma leen baaluma leen. nga da ngay jël seen numéro. dama jël seen numéro dama leen di <laughs> nuyu waa 2STV yëpp di nuyu sama yaay sama famille. samay xarit samay fans surtout. surtout les fans amu seen fay. ndax euh, bëgg dafa metti xasaar. Mm. ñu bëgg ma jàpp tawu bàyyi boobu ba léegi ñu nekk parfois damay dugg commentaire yi gis ñu waxal ma lu ñaaw wala ñu waxal ma lu bon ñoom ñoo fay nekk di défendre nekk di xuloo ñoom ba dama naan fay sax. Mm. yàlla na leen yàlla fayal. amiin yàlla bi. ndax jël sa connexion toog si di ko bëggee di commentaire di ko partager. yaa ngi ko yaa ngi doon commentaire rek. man tontu ma mos <laughs> a tontu commentaire xam nga may tontu donc merci beaucoup à vous mes fans je vous beaucoup. te préparez-vous am na chose yu <laughs> merci. merci à toi jërëjëf ña koy gërëm bu baax a baax a baax Faye di ko wax ni en tout cas kontaan nañu ci moom di ko remercier di nuyu toute la famille maman Amina gërëm nañu leen bu baax a baax. Euh, Vicky nag bëggoon naa nga jege ma mais comme que Faa nee na moom ñëwewu la du ma mën euh, euh, def ay mbir ak yow donc maa ngi remercier amis chers téléspectateurs yéen ñu toogoon seen kër di seetaan bari na ci ñoo ni ñu ngi doon wax kañ la ñuy reprendre li nga xam ne moom moo di wake up de retour dans wake up et avec Vicky ça va être beaucoup plus drôle ndaxte Vicky mu ye nit loolu beneen affaire bu spéciale la na la doon merci à toutes et tous et merci à notre partenaire Uber ci li nga xam ne moom moo di émission. bii di waykat di gërëm bu baax a baax euh, papi di gërëm bu baax a baax nga xam moo di MP euh, Zo Omar boss comme que dafa daw nañ xam naa ne boo ko nuyu te a boole woon ci équipe bi ñu ngi koy kontaane moom itam bu baax on vous donne rendez-vous incha allah prochainement merci à toutes et tous xam naa waykat bii di ñëw a garab faa gën nga bëgg ma yegg hmm. waxal rek bu tiit amul problème jour bu ma neex laay dugg si kër. maa kan la. foofu la ñu def ci code balaa mu ngay xam di préparer. très bien ah kon neel. wéykat bi waaw léegi ah. dañuy dañuy damay def à trois euh, ñu def wéykat mu jeex. say verre bëri na trois deux un. wéykat. <laughs>